Cheikh Mokhtar Ba ñu ngi lay fàttali di lay yóbbante ci président de la République tawati sëriñ bi te mooy tawati jaboot bi te mooy li ñuy tawatoon daaw te tawat yi nag tàmbaliwul daaw lii ñuy tawat tawati juróom-ñaar fukki at yóbbu wala moo ko sax la tey loolu ñor la nag loolu day wane ne li ñuy tawat gannaaw at mënuñu tawat ko fajoogul te wolof dafay wax luus mënul day yàq ak xarit waaye gant luus man day yàq xarit te loolu nag li ñuy ñu tawat loosement la ndax ci dëkk yi rek la jëm di Daaru Salaam ak Gaawaan loolu lu ñuy defaral dëkk yi nag muy lu mel ni yoon yi courant bi ak fu ñuy fajoo kenn ci dëkk suñu baax ndax sëriñ Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy suñu kilifa suñu sase woon ne damaa bëgg fu xew-xew bu am ngir ñëpp fay teraanga sase leen ci yéen waa jabaru borom Gaawaan danañ ko def ndax suñu borom jox na ko waaye nag li nga xam ne dañ cee bokk bokk ci réew mi muy ñuy def ci ci dëkk yi loolu moom bëgg nañ président taxawoon na ci te bu ko waj nak waaw loolu maxtaar bo demee na ko ko wax te nang ko ko waxee waxin wu ñor bo xalé wu mun da ñak la sàggane gi nak ak yeexe gi mo waral kàddu yi ngeen di tàmbalee dégg ci njabot gi waaye ñoom njaboot googu noo ngi leen di ñaan ñu andako dal ndax dafa am lu ñu xamé won ca borom gaawaan ba tey mooy suñu diine sam suñu ngor sam suñu talibé te yoy ku koy sam di nga am yar ak i teggin te amul ci ne suñu bëgg-bëgg suñu borom dana ko safaral inshallah allah muy li nu bëgg ci Daaru Salaam gii ak gaawaan gee nga xam ne fa la sëriñ bi nekk nga xam ne digganteem ak Bambey fukki kilomètre ak juróom-ñaar te kenn mënu ko goudronné wuñ ko ba léegi nun léegi danoo am sax ragal ci ne sëriñ ba fa nekk te jiite njaboot gi buñ ko bëgg a indi fii rek danay am ay jafe-jafe ndax ci mage àgg na ba xam ne ñemeetuñ koo jaarale ci yoon ba loolu nag bëgg nañ ko ñu ci taxawal te suñu yittee nag nañ ci bàyyi xel baax tey xam nañ ne dana faju su boobaa nag buy faju président ba mu fi fekk yàlla rek ko xam yéene woon nañ loo nag muy kii fi nekk ndax xam nañu noonu ne ka muy defaroo ci ak ayam du yem mukk ak mujj ak président ya ko jiitu ak ya topp ci moom ndax muy Daaru Salaam gii di gaawaan ñaari dëkk borom gaawaan la ñuy wax fu ci nekk Serigne Touba fekk na ko fa am lu ma ko fa wax waaye ak lu mën a xaw suñuy bëgg-bëgg bu mënu tax a wax lu ñaaw wala ñu def ko ndax la ca sunu borom tëkkoo adduna jaru ko te suñu kilifa muy borom gaawaan danaan lijjanti am lëj waaye daawul fekke am lëj te suñu borom defaloon na ko li gën ci adduna mooy nit bu nitee kilifa yu bari ba seytaane bëgg a yàq seen diggante ak sëriñ bi ci moom lañu ñëw mu defar ko moo doon di sàkku ñaan ni ñu ko président sante pour que nawet bi ñu dugg nit ci yàlla defee ci guddi gi nga xamante ne moom lañ jagleel sëriñ jable jagleel ko maam Cheikh Anta Mbacké yàlla def taw am yàlla na taw bi continuer te nekk jàmm ci réew mi nek ndox mo xamantene dina gunge doomu adama yi té du lor néna yit ñu ñaan pour réew mi am jamm parce que ku jité jamm ngay wut ku bëgg liggéey yit jamm ngay wut kon buñu fi dajé te nek ñun ñëpp ay julit te ñu ñëw fo xamantene bëri nañu ne luñu fi ñaan yalla def ko kon dañu wara dek. dékk pour yalla def jamm ci réew yalla tapé xol yi ke lepp lu ñuy def ñun wër ko ci gëm yalla te xam yalla yàlla rek ay joxe fi nak ci Daaru salam limu ñu wax moy xamna na ne lu ñu fi ñaan yalla dina ko nang sëriñ bi dégg na fi ay jambat limay ñaan yalla di ko ñaan yonent bi di ko ñaan sëriñ Touba di ko ñaan nit Cheikh ant mam Cheikh Anta mooy yàlla naa doon taalib bi fi bi mujjee ñëw nekk ci jëwrin ñu may poser problème yu mel nii hmm. loolu laa mën a ñaan hmm. parce que fàttali dana am jottali it dana am ci lii ma fi dégg waaye damay ñaan it yàlla na ko yàlla tombale ak ndogalam waaye du ñàkk koo bëgg a def wala ñàkk cee farlu hmm. man damay ñaan rek yàlla na yàlla def bu ñu koy fàttali mu tombe ak ndogalu yàlla ba nga xamante ne bu ñuy waxati yeneen i doléance la ñuy wax parce que doléance yu jeex waaye du nekk li ñuy fàttali boobu ba loolu laa bëggoon wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah